di ma waral suma jëkkër ji jaaju maam bu rëy Sénégal li ko wal nit naan ay tan ni alhamdulillah suma jëkkër ji moo ko waral moo ma sagal moo ma teral moo may tekki yow baax ma di ci aw ay waay jaaju maam bu rëy suma yàlla bëgg na ma bàyyi ak yow mu dee taw yow laa bëgg Big and fun. Yeah. umu jëñ way wu sama xol xare nga jooy ay waay sama mu naqari yàlla yi gën a naqaraay ay waay Gambia ñaanal leen maay yàlla ma sama ji njaboot gi barkeel njaboot gi barkeel yàlla yu papa yàlla yu sire ma bàyyeek yow yaa ma yiit yaa ma teg ci yoon wan ma nan la ñuy sëyee ay sama gaay awo awo awo awo yaay sama awo yaay sama yaay awo jigéen ñi gisaagul